kontaan si nii xale yi def tey xale yi Médina yii euh, dajaloo jël seen alal tey jii ñu def ndogu andi si juumaa ji jox nu waa juumaa ji ndogoo ko gi ñuy tagg si Naam salaay salaam invité nit ñëpp kenn desul euh, ñu leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak sutura di la ñaanal bii yàlla bu mu nekk suñu mujj euh, koor ñun dañ yàlla def leen nag barke leen ndax defal nañu gox bi lu rëy rëy te ñu nu ko tuddee ñaar ñu nu ko tuddee dafa rëy si nun muy imaam Jibi Taal nekkoon imaamu juma Medina Course taxaw fi taxawaay bu rafet boo xam ne ñëpp gis nañ ko ñëpp changé dëkk bi defar mag ñi defar ndaw ñi ah am yar am teggin am xam-xam am diine juma ji bu ñëwee day fees dell te ay gone rek a koy fees yooyu yëpp liggéey la si liggéey bu mag yàlla ko yàlla yërëm bi mu demee di maam Mamadou Sall di bàyyi Adama Sall mii tey nekk Leral TV mooy bàyyam moo toppoon si maam taxawu juumaa ji taxawu dëkk bi imaam Mamadou Sall jaamukati yàlla borom xam-xam borom xam-xam bu mag bu ñu jiitee lu nekk changé nag si dëkk bi ba tey jii mi ngi mel ñoom demunu rek la ñu def ndaxte dañu nekk ay ndaw toll si seen diggu nënd te ku ne xam na ndaw léegi mënoon nañ def lu neexul yàlla tëgg ay soirée mbaa tëgg ay xumbal ay sabar mais nag ndokk yàlla alhamdulilah ba yàlla xiiree si lii ndaxte nag ku ne xam na ndaw léegi si waaw di sant tamit ñi si dugal seen loxo yëpp du su ma limee damay juum parce que ku ne xamante ne ne ay xale lañu mënoon nañ ne ay xale rek lañu jàpp jàpp leen ay xale mais danoo jóg ñëw wuy si xale yi te mënoon nañ ne xale yi duñ leen yëkkati waaye dañu bàyyi liñ doon def yëpp yàq seen ay nelaw lem seen lal ñëw toog fii boolee nag seen doole surtout ku fi ñëw rek ku nekk da ànd ak sa doole amul lu ñu deful si bis bi di ñaanal suñu ñaari imam yi ñu siy rendre hommage ku si mel ne imam Tall ak imam Sall ku ne xam nañu liñ doon servir ci quartier bi liñ doon liggéey nag ci biir jumaa ak ci di biir quartier bi yal na leen fekk seen bàmmeel yal na nu xippee aljana yal na suuf ayof seen kaw ñu réccu luñ fi doon def loolu laa leen di ñaanal ak xale yi nga xamante ne dañoo génn àdduna yal na nuy dawal bu yiw yal nañu teeru seen waajur yi keroog ca aljana di gërëmaat ñëpp ñu si def seen doole di ñaanal xale yi nag yoon bii ñu jël yàlla bu leen si yàlla wàccee yal leen yàlla gën a xirtal si boppam gën leen xirtal si yoonu diine bi soo leen ñu def ko bu rafet la parce dañoo toogoon di waxtaan ñu gis idée bii nii dafa rafet parce que suñu paa yi génn àdduna ni suñu imam taal ak suñu rakk yi génn àdduna ñu war leen ñaanal wàccee leen kaamil loolu idée bu rafet la parce que ñun ñëpp dañ fiy jóge ñun ñëpp duñ fi toog trop tard trop la leen di fekk ji ndax lii nii soo gisee tey ji ñi dem si mosquée bi di ko raxas di di ko bale parce que ñun ñëpp fa la ñuy dem tëdd ji jaadu na chaque semaine sax ñi koy def ñu dem foofu noonu di ko raxas di ko nettoyer parce que ñun ñëpp fa la ñuy mujjee. lii tamit lu rafet la parce que man lii biñ ma ko waxee dama si kontaan trop parce que man yii laa bëgg affaire de. daayira yii nii dama ko bëgg tellement que si ma ko waxee daf may neex parce que déjà man dama bokk Coskas loolu moo tax affaire bi neex ma trop. loolu moo tax Ibou bu mu ñëwee wax ma ko dama si gis idée bu baax ma ne ko loolu moom soxlawu sanga ngay wax que ma maa si njëkk teew. loolu moo tax ñi defar lii nii organiser ndog bi di ko joxe si koñ parce que weeru koor loo si def yàlla dalay fay bul sax xeeb li nga siy def nga génnee ndog rek jox ko nit. ku amul dara rek nga may ko mu lekk te yàlla tax yàlla dala siy fayal lu bëri ay xale lañu de mais idée bu rafet lañu am parce que tey ji ku ñu fekk si defe naa ñii kat ay xale lañu mais tànk bu baax lañ jël te maa ngi si conseillé ñeneen ñi tamit ma leen wax ni idée bii nii ñu jël nañ si gën a sax parce que lii ni chaque année da nga bëgg di ko def parce que tey jii nii maire yi ñëpp ñu ngi ñuy remercier parce que yaakaaruñu woon si seen doom yi si lii la ñuy dugg si idée bu baax bi nii dañuy yaakaar seen doom yi si affaire de caaxaan la ñuy dem wala affaire yooyu noonu kon nag ñu ngi ñaan ñëpp ñu gën ñu jàppale gën ñu dooleel wa salaam. ñun tamit dañoo may parce que ñoom suñuy imaam lañu si koñ bi lañu nekkoon di ñu defal lu baax di noodu tout ça lépp li ñu am si ñoom la ñuy dem waxtaan ak ñoom parce que yàlla def leen bàyyi fii nii ngir ñu ñuy jàngal àdduna. parce que tey jii nii képp ku am problème wala nga am problème ak say parents soo demee waxtaan ak ñoom ñoom daañu ñëw sa kër waxtaan ak sa parent wax la lii ak lii yàlla lii la santaan ak lii la santaan loolu moo tax ñu gis idée boobu noonu ñu def ko.